mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 mbokk yi xippi leen seen i bët te tàggoo ki nax ki ko mën laa ki koy jéem te ki ne fàng daa ne maa ngi nii nëbbatul ay mbiram. jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen nuyu fi leen daan nuyoo tey nag bu ngeen gisee taxawaay bi fii xam ne ñoo géej waaye marché bees fii ñu nekk nag mooy pàkku fas tey nag ñoo defal leen micro-trottoir boo xamante ni mooy ci làmb ji la wax ak est làmb mën na dem avec huis clos est làmb parce que boo xoolee fi mu toll nii sport yëpp tijji na tey nag ñu ñëw dafa leen micro-trottoir fii ci waay ndax affaire boo gisee bàyyi yi moo ci def euh, jéego yu am solo tey nag ñu ñëw leen bii waay bëgg leen defal micro-trottoir ma njëkkee fii ci dawa ko def fa si aadama fii mooy waay fii wute naak maris jàmbaar nuy naa la waaw dool baax a baax a baax jàmbaar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 waaw léegi jàmbaar nuyu na waaw fay naa la. yaa ci jàmm. waaw sant yàlla bu baax. Euh, gis nañ fi làmb toolu ñuy wax làmb mën a def huis clos amateur yi est-ce que d'accord nañ làmb huis clos. ah mais bon loolu sama xalaat bu gàtt arrangé wul mbër yi tamit parce que boo xoolee tamit ñoom seen fii euh, lépp làmb la quoi moom lañu ñu am comprendre si lañ ñu sukkandiku pour dundal seen i njaboot wala affaire yooyu noonu comme si ka nekk sama xalaat bu gàtt daal mooy que métti na daal te aussi doy na waar. doy na waar mais fi làmb toll est-ce mbër mën na ñëw ci di ci ci combat moom ak ay cumukaayam kase di bàkku kenn du ko tàccu kenn di jubile bu tourné gis kenn est loolu bokk na ci liy jëmmal làmb. ah sama xalaat bu gàtt mën nañ may ku nekk yow ki ngay àndal ak ku topp sa ginnaaw. bu mu paase quatre personnes ma xalaat bu gàtt waaw. ma déggee wax ji daal mooy huis clos bi ànd nga ci. waaw ci ànd naa ci waaw ànd naa ci. naa nuyu naa la. delloo naa la ziar Ousin mon frère. yow moom du ma la présenter ndax gars yi xam nañ la bu baax a baax. Euh, doo ma présenter du ma la présenter puisque on se connaît très bien. noonu la fa demee. tey nag ñu ñëwoon fii euh, Mass Bess doon def reportage parce que xam naa ne yow suma mbok nga suma naataangoo ci li ñuy liggéey. mais est-ce que mën na nekk huis clos.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 boo xoolee mois de mars bee passé lañ déposé suñu licence yàgg na boobu léegi xam nga il faut ñu renouveler waat dix mille xam nga te day metti boobu léegi bëre woo defoo dara day metti quoi entraînement itam da ngay dem ba benn instant da ngay mujjee lase saa yo nekkee ci état ñu ne la noot couvre fa amaan na wala dara loolu day metti nekk ay mbër yaakaar ci làmb làmb toll fii est-ce que bokkul ci li nga xamante ne ni da leen di décourager loolu waaw man moom boo xoolee mooy li may wax mbër chaque jour rek da ngay dem ba benn instant xam nga ñu bëre sax am nañ confiance mais ñun ñi nga xamante ne mosuñu suñu xam nga ñu ngi door a débuté day métti si trop trop torop torop da ngay mujjee découragé mais après chaque jour da ngay xam ne yow mission bi yàlla moo ko bëggee nii rek après dañuy nekkaat ci bi daal di jaayante. lan ngay wax sama mbër yi nga xamante ni comme yaa ak ñoom yéen a su leen bëre loolu loolu la wax. waaw di leen wax ñu jéem a jaayante rek jéem a jàpp xam nga xam ne tamit. waaw mbas la rek bu fi wàcc du ñun ñoo ko décidé sunu borom moo ko wàccee xam nga nañ ci nekk rek ku nekk liggéey jéema a góorgóorlu ma jaayante mais métti na trop grand wax dëgg yàlla métti na trop. waaw ma gën a xam. kontaan naa ci waaw bëgg nañ bu baax a baax gis nga ni lay demee micro-trottoir te ñu ñëw fi nga xamante ni mooy marché bees gis ngeen yéen a ko gisandoo marché bees euh, jàmm rek a fi am fi la ñëpp di daje ku xëy dakaar boo ñëwee fi ngay wàcc tey nag li leen andiloon ci micro-trottoir di leen jox dig daje kontaan naa ci yow bu benn yoon xanaa ñu ñu bëgg balaa jot nag gannaaw li ñu dese ci temps bariwul jaajëf.